cent cinquante mille la allah dañuy ñaan yàlla euh, def si leneen ak leneen ak leneen ci kàttan yàlla xam na leneen lu ñuy préparé incha allah loo xam ne ministre ñu koy préparé incha allah bu jotee ma ñëw fi tey nag ci turu ministère nu Alassane Sall ànd ak délégation bi nga xam ni ànd na ak ñoom muy Pa Galadio Sall mi toog ci sama càmmoñ ànd ak eh, Iba ànd ak eh, Omar Ndiaye ànd ak Ousmane Camara ak Alassane Ndiaye Ba ma ñëw ànd ak ñoom ci turu ministre Thierno Alassane ñun ñëpp xam nañ ni la 15 bi ñu génn eh, dafa doon def tournée bu mag a mag biir Cité Lamy comment ko commencé ko ci suba ba ngoon yàlla def mu jaaroon fii ci poste de santé bi pour nemmeeku si poste de santé bi mu fekk fii infirmière infirmière bi toog muy madame Touré waxtaan ak moom madame Touré dalal ko mu waxtaan ak moom mu wax ko ay doléances yi nga xam ni vraiment. buggoon na ñu jàppale leen ci moom madame ture loolu moo nekkoon association matron yi nekk fii di liggéey naka la ñuy def ba jàppale leen mu sàkk woon ko ci ministre Thierno Alassane Sall euh, bi tournée bi weesoo ministre Thierno Alassane Sall dëggal li nga xam ni moom la ko madame Touré euh, sollicité woon mooy mu jàppale matrone yi nekk fii di liggéey mu yëkkati benn enveloppe bu cent cinquante mille francs jox ma ko ma ànd ak délégation bi pour indi ko teg ko ci loxo madame Touré comme ni ko ministère nu diggee woon euh, loolu li muy wane rek mooy que le ministère nu Alassane Sall euh, nit ku respecté ay engagement am la euh, nit la koo xam ni lu mu diggee lu mu ci mën ci kàttanu yàlla dina ko def te bés bi tey wane na ko parce que li mu diggee woon moom la ñu andi nii tey pour jébbal leen ko euh, muy wax ka ni moom la ministre xëy na dina am yeneen jataay ak yeneen jàppale yoo xam ni su ko yàlla dogalee bëgg na ko def ak post de santé bi xëy na lii njalbeen la rek mais incha allah mu ngi ci xelam. que bu leneen amaate mu xool lu muy jàppale poste de santé bi parce que su ko jàppalee Cité Lamy la jàppale te su jàppalee Cité Lamy ñun ñii nekk fii yëpp la jàppale su jàppalee Cité doomu sitalami Lamy yëpp la jàppale euh, te bëgg na am benn partenariat ak poste de santé bi nga xam ni lépp lu mu mënati incha allah yàlla dogal mu am ko mu xool lu mu leen ci jàppale donc ñun waa Cité Lamy yëpp ñu rafetlu loolu tam li nga xam ni ministre Thierno Alassane Sall def na ko wane na yëg-yëgam ci waa Cité Lamy wane na yëg-yëgam aussi ci waa Thiès rawatina Cité Lamy gi ñu dëkk parce que ñëw na nemmeeku si ñu xam suñuy doléance xam su ñuy soxla yàlla def mu commencé di ko faj ndànk-ndànk kon kooku li mu def dañ koy rafetlu wane ni aussi le ministre mi ngi Euh, dooleel politique gu président de la république muy Macky Sall parce que lii la président bëgg lii la président woote mooy lan jàppale askan wi jàppale njaboot gi te le ministère nu Alassane Sall guddi ak bëccëg mi ngi ci taxaw te lii firnde na ko euh, wane na nitam vraiment euh, moom mi ngi yaatal le ministre vraiment ànd ci ak tous les responsables de la l'APR ak Benno Bokk Yaakaar pour. jàppale politique président moo xam euh, ci commune bi la ñu nekk wala ci département bi euh, donc ci tànk yooyu la ñu ñëwee woon euh, di rafetlu aussi bala may bala may tënk li nga xam ni président def na ko mooy jiital Thierno ci commune bi ne ko coordonné muy commune u Thiès jël Augustin Tine nekkoon mu coordonné département bi donc Thierno na coordonné commune wu Thiès Augustin coordonné département wu Thiès loolu lu ñu rafetlu la aussi occasion la pour ñu remercier wàlla ci président de la république wane na ni aussi APR ñëpp bokk ndey bokk bàyyi ñëpp ñu ngi liggéey pour jàppale président ci élection yi ñu jëm ak yi nga xam ni moo ciy topp donc ci gàttal loolu laa amoon lu may sànni di sant aussi madame Touré vraiment di sant ñëpp ñi nga xam ni aussi ñi ngi liggéey ak moom euh, di rafetlu aussi seen taxawaay wane ni euh, jubo ak ànd nekk benn rek mooy doole di lancé appel aussi na que ni ñëpp nañu ànd bokk ndey bokk baay xam ni Cité suñu Cité Lamy la poste de santé bi ñun ñoo ko bokk te aussi wane ni mbooloo mooy doole balante àq ñun ñëpp muy góor muy jigéen euh, bokk benn objectif mooy lan fexe ba poste de santé Cité Lamy bokk ci poste de santé yi nga xam ni vraiment yi gën a avancé la ci biir cees yi gën a euh, am am maanaa la ci biir Thiès nga xam ni bépp malaat bu fi ñëw dina faju ci jàmm dem ci jàmm damay lancer appel boobu aussi unité boobu vraiment maa ngi sant ñëpp di sant di rafetlu toogaay bi di sant ñi ma àndal di liggéey parce que madame Touré rek mënul dara dëgg la turu madame Touré la ñuy wax waaye madame Touré rek mënul dara comme ni ma ko waxee woon la dernière fois bi fi ministre bi jaaree parce que bi mu jaaree wax dëgg yàlla lii moo firndeel ni gëm na waxam gëm na kàddoom te bëgg na dellu siwaat ci li mu waxoon def ko firndeel ko ndax bi mu ñëwee li ma njëkk wax mooy Cité Lamy suñu Cité Lamy na Thiès yëpp suñu Thiès tamit Cité Lamy suñu Cité Lamy na ñu def ko li ma ko wax mooy que ni bay ci sawewu tànk parce que ñi fi nekk muy ASC matron yi amuñu dara dama bëgg nga jàppaleel ma leen mais nag ki ni kiy maye doo ko ñaan mu reetaan ni ma li nga wax di dëgg la ki lay may doo ko ñaan waaye may itam lu ma mën dinaa ko def ci Cité ba ñëpp xam ne def naa ko ci Cité def naa ni lii rek firnde bi la ndax bu dee madame Touré rek la dëgg la résultat dina am mais dina des ASC matron yi topp suñu ginnaaw ak sage yi madame Touré ak sage-femme yi rek mënuñu defar poste bi mais ASC matrone yi fiy nekk di fi yendu di fi fanaan yore liggéey bi presque li gën a dis si liggéey bi ñu yore ko ñooñu ku leen jàppale madame Touré nga jàppaleel ku leen jàppale sage-femme yi mu nekkal nga jàppaleel ku leen jàppale poste de sant bi nga jàppale donc ñu ngi remercier ministre bi di dellu di wax jërëjëf di remercier aussi monsieur Abouba parce que dox na ci wax na ci téléphoné nga ci sonn nga ci def nga ci lu ne di remercier aussi suñu tonton Galaaju moom itam sonn na ci torop tout le temps bu téléphoné naa ma lu manqué ci poste bi madame Touré nu post bi def lu lu ngeen bëgg ci poste bi ma wax ko ministre bi et tout ça donc ñi ngi réitérer sunu sunu sunu ngëm-ngëm di réitérer aussi sunu sunu engagement ak di ko remercier vraiment di ko ñaanal li naa wàññi bu ne benn lay commencé di ko ñaanal lii mu man yàlla na man lu ëpp lii déwén te yéeneem ci Cité Lamy yàlla na ko yàlla yombal mu yeggale ko wasalaam